salaam salaam salaam les amis de Oser Média maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen indil nag tirage bi nga xamante ni mooy am pour quart de finale Ligue des bi ah Ligue des champions nga xamante ni moom mooy Coupe d'Europe bi et tirage bi métti na lool Paris Saint-Germain mooy dajeek Barça ah Paris moom mooy njëkk recevoir deuxième match bi Barça mooy dem beneen bi ci gën a métti mooy Real de Madrid ak Manchester City. Real de Madrid Manchester City bu ñu Real de Madrid Manchester City Dortmund ak ki nga xamanteni moy Atletico de Madrid ñom ñoy dajé ba dernier match bi nak bobu it match bu metti la Arsenal ak ki nga xamanteni mom moy Bayern de Munich lolu mom moy tirage bi nga xamanteni mom lañu indi. donc ma fatale len ko tirage au sort bi li nga xamanteni ni Paris Barça Paris Barça mom dañuy fatali lu bari remontada lañuy fatali donc Paris Barça premier match bi nag Paris moom mooy recevoir Barça moom mooy jël deuxième match bi mu nekk nag match boo xamante ni wax dëgg yàlla gars yi match boobu dina neex lool en mois d' avril incha allah Paris Barça woo Barça Paris kan moo war a génn si ñoom ñaar dina nekk match boo xamante ni moom match bu ñëpp di bàyyi xel la ndax match bu neex lay dekk waaye ñu bëri nag ñu ngi naan jox nañ Paris favori ndaxte Barça dafa bëri lool ay ñoo xamante ni dañoo gaañu donc nee nañ daal légère favori daal jox nañ ko ki nga xamante ni. moom mooy Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain daal bu defee di kii mën na génn ci ki nga xamante ne mooy Barça bu ñu paree ci boobu ñu ñëwaat ci ki nga xamante ne mooy Real de Madrid ak Manchester City Real de Madrid Manchester City boobu moom wax dëgg yàlla cinquante cinquante la kenn ku nekk mën nga génn sa borom parce que ñaari équipe yi dañ ni kenn ku nekk mën nga jël li nga xamante ni moom mooy final bi ñoom ñaar ay favori la ñoo xamante ni. indiscutable lañ donc tey jii ko ci toog rek boo moytul sa morom bu jàllee mën na jël coupe bi ndax ñoom ñaar ñoo ëpp doole ci équipe yi fi nekk yëpp loolu la pronostiqueur yëpp wax loolu la observateur yëpp wax aussi muy diggante Real ak Man City boobu moom cinquante cinquante la kenn ku nekk rek mën nga éliminer sa morom. Dortmund ak Atlético waa pare moom Dortmund lañ bëggoon jot waaye Dortmund Atlético bi moom dafa équilibré moom moo nekk match bi gën a équilibré ci match yi donc Dortmund mën na door Atlético Atlético mën na door Dortmund. waaye nag dañuy jox léger avantage ay Atlético ndax Atlético euh, moom mooy recevoir match bu mujj bi Dortmund mooy njëkk recevoir loolu la ñuy jox Atlético li nga xamante ni moom mooy favori bi mais Dortmund aussi euh, wax dëgg yàlla équipe la boo xamante ni lu lu affaire bi gën a dem rek muy gëna a wane boppam donc du nekk match bu yomb mais daal léger avantage bi ñu koy jox daal dañ koy jox Atlético de Madrid contre Dortmund bu ñu paree ci bobu nak ñu ñëw dernier match bi al euh, ñi nga xamanteni moy les Allemands di Bayern de Munich ak Arsenal Arsenal les Gunners nga xamanteni actuellement ni championnat Angleterre ñoo nekk ci kaw di ak Bayern de Munich mu nekk nak match bo xamanteni it match bu metti la la jeunesse contre li nga xamanteni moy expérience ndax Bayern de Munich boy xol ñom dañu am expérience lool macha allah expérience boobu mën lañ ci génné waaye Arsenal aussi dañu am jeunesse te dernier match bi aussi ñu ko koy Arsenal match àll bi dal bu Arsenal def euh, defee tout ba maintenir li nga xamante ne moom mooy fuggu almaa yi bu ñu demee retour bu boo moytul fële seen dëkk mën nañ ci génn donc daal loolu moom mooy tirage bi ngeen jàpp ko mbokk yi Barça Paris euh, Real de Madrid ak Manchester City Dortmund ak Atlético de Madrid ak Bayern de Munich ak ki nga xamante ne moom mooy Arsenal loolu moom mooy euh, affiche yi nga xamante ne moom mooy ci quart de finale yi <laughs> nar naa nekkul metti nag. tey quart de finale yi quart de finale yi daal nar naa nekk lu méttee métti métti yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ba ñu def pronostic mais man daal def naa ni Paris moom yaakaar naa mën na génn Barça euh, Manchester City mën na génn Real sama xalaat man laay wax bokk euh, Dortmund euh, Atlético mën na ci génn. Arsenal it mën na génn ci Bayern de Munich man loolu laa joxe sama pronostic donc nag nañ yàlla bàyyi yàlla ba ñu àgg ci jàmm ak salaam dinañ ko xam. mais jàpp leen barça paris real manchester city dortmund atlético de madrid bayern arsenal mom moy li nga xamanteni moy tirage du quart de finale ligue des champions yi mbok yi jere ngeen jëf waa Osemedia dinañ leen toppal mbir yi fu mu yem nak wax leen resultat yi ci am yëpp mais dal loolu mom moy tirage bi jere ngeen jëf